suba ci samedi bi tombé ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru juillet fële ci stade Léopold Sédar Senghor ki nga xam ne mooy Eumeu Sène war a jàkkaarloo ak ki nga xam ne moo di Bombardier nekk roi des arènes. question yu bëri samp samp ci askan wi di laaj ndax Bombardier day conserver roi des arènes wala ki nga xam ne mooy Eumeu Sène day fàttali kuram yóbbu ko foofu ca Pikine rédaction Média 7 dem xooli amateur ngir laaj leen lan ci xalaat. génne bombardier xam nga bu bëree day dal xam na li muy def xam na fi mu jëm te xam na li mu yor nekkul mën a bëri quoi. dina gaaw du man moom du <laughs> naa ne moom Eumeu Sène euh, xam naa ne moom bombardier moom da koy déglu moo yor li nga xam ne Eumeu Sène da ko soxla kon du moom mooy dem attaqué Eumeu Sène lu tàng jël waaye mooy favori quoi à 60 pour cent. mais Eumeu Sène aussi mbapatkat la mën na bëri aussi xam na tuuti kattan quoi am na kattan boo xam ne war na mën a daan Bombardier bi. combat bi moom Bombardier li ci nekk mooy Bombardier mooy roi des arènes ay fonkal la moom fi ñu toll nii man sama yaakaar daal moom xam naa ne comme Balla sama waa ji da cee échec ay Modou yëpp yëpp échec moom Bombardier moom dina ko.

kaw dëggu la bu dóoree combat bi jeex non euh, non combat bi mu a ne club rek nga dagg na bi sànni ñun fas yi amoo seen lan 100 pour du ma da daan suñu bëree da daan suñu xeexee da koy dund loolu moom waaw. si la ne Casamance moom ah wala galaaj fekk baax. te amoo seen doomu Casamance la ñu koy ñaanal yàlla nag xolal ndam jox fi ba nekk fii lañ quoi suñ sañ amoo seen mooy ndam xam nga roi bi teewu ñu ko ñaanal ñun ñëpp nag képp koy bàyyi ma ñu ñaanal amoo seen allah ya. kwa nyan kwa nisi apa aja mungkin berapa ngenyang kamu jadi yo benda Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn waaw kooku waaw lu yomb la lu yomb su ko defee ñoom ñaar yëpp mais dañu comme monsieur moo koy laal

waaw boo baaxul du yomb du yomb du pare ñoom ñaar yëpp mais dañu comme monsieur moo koy laal waaw. waaw. waaw pare. waaw bu ko baax mën na yàgg mën na bañ a yàgg. ne bés nga jël si rek foofu la mën a jël foofu la mën a jaar bu gën a ñu sotti moom foofu moo koy jël ñu ñëw jël waaw lu yomb la du yomb su ko def ñoom ñaar yëpp mais dañu ëmbaseen moo koy laal